Euh, moom euh, génn na APR wax na itam ci mairie bu Guédiawaye ne pare na euh, pour jàppale ay dara ngir mu réussir ndax gis na ñi am na ay jafe-jafe ci mairie bi naka ngay jàngatee sortie bu rakku président. non loolu moom dëgg la rafetlu naa ko parce que tamit nga jóge woon ci mairie bi. Mm-hmm. mën a am ay buntu yoo mën a jaar. jàppale Ahmed ba loolu réussir ngay doomu géejawaay mën leen a soxla ëllëg. Mm-hmm. muy ci biari côté loolu dama ci d' accord. wax mm-hmm. dëgg yàlla am loolu mënuma lu dul rafetlu ko. Mm-hmm. sur ce plan. d' accord ci génnam bi ci APR na. non génnam bi APR APR moom dañ ko sa parti la buñ sampoon. maanaam programme ko ci Macky sàll mu mm. jeex ni ko Macky ma APR du woon parti. Mm. parti boo xam ne instance yi doxul wala nangam. Mm. mooy seule constance ñi ci des ay variant lañ. ak yoo xam ne ko programme du woon parti léegi nag ba mu fay nekk nag comme li muy wax nii nag naan ay vie parti mosoon a jaar bay wax waxu ay communiste euh, wala nangam nag yooyu noonu bu mu toogee foofu lañ ko waroon a la ko waroon a wane d'accord ci daf ko war a mën a wane. loolu moo doon dëgg su dëgg woon noonu lay def léegi nag bon. ci côté parti politique bu ko neexee man da doon politique keroog dafa wax ne duggagul ci politique nag. Mm-hmm. mais mi ngi nekk di sondé ak xam ëllëg lan lay jox te nag noonu koo gisee politicien la nag. Aliou Sall am xam la nag ci politique voilà. d'accord ñu ngi lay jaajëf léegi no am na mm-hmm. fen beneen bu des. ci mm-hmm. pétrole bi bi mu wax ci pétrole bi. ci li mu nee nit ñi. dañ ko doon tuumaal léegi pétrole bi feeñ na am na ñu koy wax. waaye nee na baal na leen quatre cent mille yi. loolu moom damay wax fii ne waxul dëgg. déedéet tey la ñu gën a yoreel suñu 400000. loolu loolu foo ko te ñëw baal ma wax la ko. mais mais mais problème problème pétrole boobu itam euh, loolu itam lëndëm na de ndax li ngi doog a am première bari wala dafa am lu ko jiitu woon. voilà moom bloc bi mu tax ñuy wax. muy hmm. bu Sangomar bii Woodside jël. jotewul dara ak Aliou Sall. peut-être ci Clédor bi muy wax xaw ma du ma fi toog sax di ko layal lu tax mu wax ko. Mm-hmm. Clédor ngay laaj na ko lu tax yow nga jékki-jékki ne Aliou Sall ñoo ko war a remboursé. Mm-hmm. loolu moom ci koo xam ne bii Aliou Sall taxawee weddi ba waat ci alxuraan weddi nga ko bi ñu defee appel au témoin bi Clédor di dem sama oto laa koy yeb. Peugeot 3008 sama oto. Mm-hmm. la ànd dem ba. Euh, fële ci préfet bii Ousmane ko fekk tey ndar mhm. te moom mu doon wax gazele wa sëñ bi sàmb waaw tey mhm. ndax àdduna gudd tànk mhm. tey image bi ak euh, Ousmane mu nekk ci ginnaaw Ousmane ah ku yéemuwut ci yàlla ku li yéemut loolu war laa yéem préfet boobu ñun bi ñu xamee loolu dañ cee boole woon waroon a def benn manifestation boo xam ne ñu ngi ko waroon a amal place de l'Obélisque moom ci boppam mu nuyu ñu nañu bu ma sañoon fii ngeen laaj moom préfet bi bi biñ fay dem Abdou Karim Gueye mii tey ñoo àndoon ak ku ñuy wax Cheikh Sadibou Diop Cheikh Sadibou Diop nekkoon na gëm sa bopp ay ay ay temps. Mm-hmm. ñoo àndoon ñun ñeent ñu yeggee bi ñuy bëggee foq mbaxanaam Cheikh Sadibou Diop bëgg foq mbaxanaam sax daf moom préfet bi ah. Mm-hmm. daf nañu déedéet lii tubaab yi di def la ñun entre ñun mën naa ñàkk nañ toog rek ñu waxtaan. Hmm. bi ñu laajee place de l'Obélisque moo nañu fii de bu ngeen ko laajee duñ leen ko jox. Hmm. te ngeen a laaj fee Clédor ne ko ñun fi ñu bëgg la ñuy laaj yow yaay xool nooy def biñ fa jógee ñu dem tribunal mooy ci fii kiiwu digg bi nekk léegi. baa hmm. ca porte bi féetee prison bi. fala gaare yaakaar naa ndax añewuñ sax ci restaurant laale bi mu paree dugg. kon bu taxawee waxaat lii lu ma jaaxal la mais man am naa ci dégg-dégg wala gis-gis. bon mais du man maay taxaw fii di ko layal mais en tout cas moo wax loolu tax Aliou Sall ak waa APR yi. bëgg a dagg loolu naan dañ ñu doon tooñ wala nangam ak nangam wala tooñ nañ ko pétrole baa ngi doog génne. fii ñu jox Court Side jotewul dara ak loolu dafa am fu ñuy wax Saint-Louis offshore ak Kayar offshore. foofu la ñu jox Petro-Tim. Mhm. bu Frank Timis. Mhm. Aliou Sall taxawal Petro-Tim Sénégal ndax Franck Timis dafa ne bëreet dugg Sénégal mhm. euh, fekkoon fi jamonoy Karim Wade dafa ñëw bi mu jëlee ministre boobu mhm. miin dafa fekk waa Tullow Oil mhm. ñoom ñoo amoon euh, contrat de recherche mu ne leen da ngeen fee yàgg te gisu leen dara ñoom it amaan amaana gisoon nañ mee dañ doon jaay bëlëfe waa ji gën leen a cenc maay jox leen délai ba pare teg ci ne leen da ngeen di joxe bonus de signature te fekk bonus de signature Sénégal dindi woon na ko depuis ci code 98 bi. Mm-hmm. par Abdou Diouf parce que dafa bëggoon a rendre Sénégal attractif. Mm-hmm. gën a yombal affaire yi pour nit ñi dugg. kon bu mm-hmm. Karim Wade laajee bonus de signature foofu waru ko. bonus de signature bi toll ci 3 milliards yu teg. bi ko tilaw joxe ba pare toogaat di tendeefal ab ba jot Karim Wade leen ñu jël contrat bi jox ko Frank Timis waaye Abdoulaye jotu ko promulgué. waaw far daanu Macky Sall ñëw. Mm. Macky Sall bi mu ñëwee Awa Ndongo moomu teewaloon fii waa Tilaw def li ñuy wax le bataaxalu jàmbat teg ko ci cemp tengu jëwriñ ja woon. Mm. jëwriñ ji yor wàllu balu mbindaara yi muy Aly Ngouille. Aly Ngouille Ndiaye ok muy waaw une lettre de dénonciation mooy li wax ci wolof léegi bataaxalu njàmbat. njàmbat cemp teng gi ma wax muy taabal. maanaam mm. mu teg ko ci taabalu ministre Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille moomee jël bataaxalum njàmbat boobu dem ca njiitu réew ma woon Macky Sall ne lii laa fi gis fekk kooku moom yàgg naa xaare Karim Wade mm-hmm. bëggoon na ko topp ci annonce yi liñ jutu ak liñ fi mm-hmm. doon wax yëpp du sosal du dëgg mm-hmm. ànd ak li fi Abdou Latif Coulibaly doon yëpp dara du ci dëgg wala wanewuñ ko mu xam ne am na fu ko jàpp mu ne tay laay <laughs> daal di woowaa IG ya ne leen lu njël lu njutu leen ko ñu lunjitu dëpp biir biti gis ne naam sàccut xaalis bi naam jël na euh, bonus de signature boo xam ne. 3 milliards dindi woon nañ ko. Mhm. ci senegal loolu sax du yoon. Mhm. waaye jël na ko waaye bu ñu ko jëlee lekk ko. daf ko yóbbu ca sàqum Petersen sàq moo xam ne ma nga ca France. Mhm. maanaam banque. SBS wala wala wala BICIS benn la ci. ñaar yooyu benn la ci. ñu lose ko fa kon sàcc ko. Mhm. waaye ñu ne ko kii mu jox pose gi contrat bi. pose mhm. pose jeex gi. maanaam mhm. contrat de recherche contrat de recherche. wala contrat de ah. wala noo ko mën tuddi amul dayo bi du gëdd gi du kopparay maanaam gone gu ndaw la ci. ak wàcc bees la ci. maanaam déedéet Frank Timis. Frank Timis maanaam société bi. du senior junior la. warta warta dugg cour des grands hmm. kon ndegam Ablaye Wade deful promulgué wu ko maam saxalu ko woon hmm. yow bul ko saxal kon du la bi fekk kon maanaam léegi Macky am na obligation parce que daa waatoon ca ba muy waat 2012 je hmm. de remplir fidellement la charte président de la république du Sénégal de faire observer de faire observer scrupuleusement loolu day dàqonteeg scrupuleusement mooy waat naa wàcc naa ne mm. lépp luy Sénégal ak yooyu kon léegi bu yebalee xam nga Abdoulaye Wade sax mënoo ko giñ loolu parce que mm. ay saytukat saytuwuñ ba ne ko bul ko def waaye Macky dañ ne ko bul ko def mm-hmm. mu teg ci fan daal koy def Franck Timis dem ca parce que noonu lay opéré dem ca Aliou Sall ca Chine mm. Chine waaw ambassade Sénégal Chine ca la nekkoon conseil mm-hmm. mu fekk ko fa ñuy waxtaan bi ñu ñëwee Frank Timis teg mbir mi ci Macky léegi nag foofu li ñuy wax haute trahison dugg na parce que yaa ne woon da nga danga da nga wattu wattu scrupuleusement mhm. haute trahison double de délit initié parce que dugal nga ci mhm. léegi bi mu ci dugalee rakkam Petro Tim bu Frank Timis daa am quatre vingt pour cent mhm. jël quatre-vingt-dix pour cent yépp biir ko affecté ko Aliou Sall maanaam léegi génn na ci compte Petro euh, Petrotim. Mhm. dugg Petrotim Sénégal bu Aliou Sall. 90 mhm. pour cent waaye léegi ñun bu ñuy jàpp suñu sàcc. ba fekk ministre de l'intérieur fekk ko kër Frank Timis du kër Frank Timis la nekk. Mhm. waaye bu duggee kër Aliou Sall léegi fan la ne. kër Aliou Sall kër Aliou. bi mu génnee kër Aliou Aliou génne juróom benn fukki maanaam 90 pour cent yooyu. mu génne 60 pour cent yi jaay Cosmos une société américaine. Cosmos waaw mu jox leen xaalis. fay leen. Mhm. mu des trente pour cent mu dem jaay ko BP. waaye njëg li dane ko doo ma ko fayandoo ay royalties nga ma koy def. Mhm. royalties mooy loo xam ne lu jëm 40 ans at mhm. mu jot boo tàmbalee nga jox ma nangam ak nangam. maam nga xam ne léegi damay tëdd muy naaw. doxatu day naaw léegi 30 pour cent yooyu. biñ ko xaymaa ci lim ko jaayee ci royalties mooy juróom-ñeenti tam deret ba fukki tam euh, tam ñare juróom-ñeent tam ñare ba fukki tam ñare ak ñaar. maanaam nga tekkil ma ko. 9 milliards à 12 milliards. léegi nag bàyyil 9 ak 12 yemale ko ci 10 10 yooyu boo ko jëlee ci ci ci milliards de dollars xam nga ñaata lay nekk. 6 hmm. mille milliards franc CFA xaalisu senegal 6 mille milliards yooyee. Hmm. boo ko jëlee ci sénégalais bu nekk 400000 lay am kon Aliou yaa ñu yoreel suñu mille ba tey bàyyi tappale <laughs> leer na. leeral ko. jërëjëf loolu moom bu ma doon tëdd di nelaw sax. Mm. di la ko wax. mais nag kele door moo leen may booy de nàngam xaw ma lu tax nag ba léegi man sax affaire daf ma jaaxal bëgg naa ci woo